asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi biir mbuur mbuur nag bu ñu fi ñëwee yaakaar naa ne ku ko wax wax làmb parce que moom wala Petite Côte bi fii ba ba ngay dem Joal ak Ile yeeg ñoom seen yaakaar naa ne champion yàgg na fi roi des arènes yi moom kenn xamul nu mu fi toll Yékini Mangade Bombardier de fois tey nag ki ñu toogal mooy Moussa Diop Moussa Diop nag di xaritu Bombardier di nitam di léppam. tey nag moom lañu bëgg a seqal waxtaan mu wax ñu ci Bombardier ak itam moom parce que dégg nañ ko ci ay fan yi ñuy wax los production yu mel ni ki noonu xamuñu luy los los lu mu ñëwee Moussa maa ngi lay nuyu di la ziar. Babacar maa ngi lay sant di la ziar di la baaluwaax di la baalaax waaw di nuyu waa Mbour yëpp di ziar ñëpp di nuyu sama grand yi ma fekk ku mel ni sama grand frère Raye Diaw di nuyu Cheikh Fall sama coordinateur di nuyu sama frère sama doomu ndey Bombardier di nuyu waa Leewtoo TV waaw di la ci jiital di ci teg ndey Kumba sama jigéen ak équipe bi nga àndal yëpp di bég ci yéen waaw. Moussa Diop balaa may ñëw ci Loss Production sax damay jëkk sa digganteeg làmb Moussa lu ko boole ak làmb parce que gis nañ la mu mel ni yàgg Bombardier am ngeen relation yàgg Yéex Diop yi kii ni noonu. lu waral loolu yàgg tamit raay mi ñu nekk nii këram te raay ku ku tudd nguur làmb wala Sénégal sax tudd raay lu maanaam lu ëndi loolu. waaw Babacar man yaroo tefes raay jaw yar ma te raay ku ko xam-xam ko ci làmb donc ma bëgg mba mbapat di seetaan làmb guddee bëccëg boobu làmb mi ngi doon am ginnaaw raay ak euh, tefes may seetaan mbapat virus bi foofu la ma duggee ma dem ba ci biir yàlla boole ma ak bombardier ñuy ànd man ak moom euh, loolu nag moo gën a évoluer sama bëgg làmb bombardier moo ko gën a yokk waaw moo gën a yokk sama bëgg làmb parce que moom moo tax ñu xam ma daanaka ci milieu làmb parce que moom laay àndal ci làmb euh, di dem stade di def tout ak moom loolu tax ñu xam ma ci làmb waaw. sa relation ak Bombardier ba parce que for naa ci yow béykat yi Bombardier amoon na ay jamono mu am ay difficulté ci làmb maanaam baisse de forme yu doy waar dégg naa bokkoon nga ci ñi taxaat mu jógaat ba nekkaat ci kaw. maanaam relation bi lan la ci loo ko jàppale xaalis entraînement wala ci wala ci xel wala ci lan. waaw Babacar loolu xaj na peut sax gars yi ñuy wax euh, ci difficulté ak yooyu mais parce que sport moo mel noonu tout le temps nga nekk à 100 pour cent mënul nekk donc nit ki nag man dama jàpp ne bu fekkente ni dama ne Babacar sama nit la dama war a ànd ak yow ci dans les moments yoo xamante ni da nga nekk ci bonne forme ak moments yoo xamante ni da nekk ci baisse forme euh, fi mu nekkee ci bees forme nag mbuur dafa doon dëkk boo xamante ni daanaka euh, moment boobu noonu dunduñu làmb à cent pour cent pas comme léegi moment boobu nag xañ na mu wéet ci mais man du ma demee demi mesure ci sama nit man su ma xasee ba ne diw sama nit la dama ciy jël samay responsabilité moment boobu nag mu metti trop parce que dem na bëri ji ak baabooy ñëpp jàpp ni à cent pour cent moomoon baabooy effectivement noonu la demee mu ñëw moom am fugu jeunesse bi dugg ko mu naagu laay wax bëree ak baabooy baabooy daan ko bi ko baaboy daanee nag même ñi nekkoon ak moom am na ci ñoo xamante ni bawuñu ko merewuñ ko mais neexu leen man nag ma jàpp ni sunu borom rek moo dogal moo ko bëggee nii xañ na nii la demee woo ko mu doon ko am gëm-gëm ma gëmal ko ni ko sawaay euh, lamb ji ñi fi ne ku la mën amu fi li fi war rek mooy euh, entraîner rek moo wóor entraîner ñu ànd te yàlla tax man ak moom dañuy ànd te yàlla tax muy ci finance muy ci entraînement muy ci technique muy ci euh, conseil muy lu mënti doon dama ci ànd ak moom donc ba yàlla suturaal ñu ànd euh, jàppale ñu ba mu dellusiwaat ci état bi mu nekkaat pour mën a jëlaat de des arènes ci Balla Gaye waaw looloo mu boole moom ci loolu. parce que carrière jeex na ñun ñaa ngi naan carrière am jeex na ata ci des wala ay nangam sangam ñu fi doon dégg ay combat pour moom ñi naan rëg-rëg ñi naan Eumeu Sène ñi naan nangam am ñoo xam ne dañ ne mook rëg-rëg bu amee combine la du làmb am ñoo xam ne digganteem ak Eumeu dañ ne du làmb ma jë Balla Gaye la war a bëreel wala Gris loolu yaa ngi koy dégg ak ko déggee ban xalaat nga ci waaw xam nga Bombardier moom ba mu nekkee ci làmb léegi foog naa musul am problème adversaire musul bañ bëreeg nit musul delloo avance li may wax am na seede donc moom ak rek man damay wax ne toujours Bombardier tey bu ñu indi woon ñaari avance ci benn tàkkusaan bu ko jëlul man ma jël ko man ma jël ko Bombardier amul ku muy amul ku muy daw ci làmb ji su leen neexee nañu indi avance su indi avance su Gris Bordeaux avance su Reug Reug ci li ko fi dese ci làmb man ma encaissé lépp kon moom amul lu muy daw ci làmb amul lu muy bañ ci làmb xaj na kay ñoom ñooy mooy toog di teggi mais Bombardier ba mu duggee ci làmbale ku ne xam ne amul lu muy moytu lamb la ak du làmb moom kooku ñoom ñooy def seen choix amateur def seen choix promoteur def seen choix mais Bombardier moom amul choix ci loolu moom ku mën a ñëw pare na pour bëri ak yow waaw. Yaxya Diop Yékini da ngeen a amay relation. noo Yaxya euh, d' accord ci làmb lañ xamante yi ma daan ko supporter boobu mu ngi bëree daanaka mbappat laay wax ba ni mu nuyoo ci làmb doon ku ma neex man du ma dëgg sama dëgg daf ma neex parce que li muy def da koy jox gëdd. ba bi muy bëri doon suñu adversaire di bëri ak ñun dañ daan jokkoo téléphone mais la comme man. waaw donc saa bu mooy taalibe Cheikh ci loo nekk doomu baay nag mi ñuy waxtaan mais nag mosuñu waxtaan ba dugg ci cadre lamb wala dañuy waxtaan ci entre frère ak frère la preuve démb bi mu fi ñëwee di def émission ak sama grand frère Raay ñoo daje ci guddi maag moom waxtaan bi muy ñëwee ci rajo bi aussi def émission bu mucc ayib bu musul am mbuur la fi def démb moo ko ma dugg ci fekk maag Bombardier nu rek Bombardier dugg aussi ñu wax léegi may wax yéen nii rek woo na téléphone di mu wax fi mu nekk pour programme mu làmb ci man damay ñëw démb bi ñu waxee ba mu dégg ni dama am journée bi mooy organiser li ma njëkk a wax mooy Moussa man la neuf damay ñëw kon ma au lieu ma ko invité moom mooy ñëw moom pour def sa participation donc le jour ji moom mooy doon invité euh, principal bi moom moom nii bu los production. bu los production waaw. lan moo la inspiré tamit ba nga dugg ci làmb tey maanaam sa dugg nga ci ba pare mais ñëw tey nekk promoteur parce que los production dégg nañ ko comme da ngay organiser le 9 février fii ci Mbour lan moo la dugal ci tey nga nekk promoteur u làmb tey. waaw loolu Babacar raison yu bari la. mooy damay dund làmb nekk ci làmb ki may àndal ci làmb bàyyeegul kon maa ngi ci biir euh, Bombardier dama ñaan yàlla bu demee ba bàyyi làmb continuer bu demee ba tekki ba ngembam continuer di tëgg làmb di ànd parce que Bombardier production ça existe déjà kon man dama am ñu may liggéey ñoo xamante ne samay mag lañ wax naa la ko léegi Cheikh Fall mii ak Raye Diaw depuis 2017 ñu ngi ciy waxtaan di ci def ay programme di ci def ay réunion et tout na sunu borom da koy soog a dogal tey ma ànd ci nag ak Bombardier mu doon suma frère jiital ma euh, di ma jàpp ci jàppale ci lu bari mais nag but bi mooy man man maa organiser man maa créé Los Production man maa ko créé je suis le DG jëm moom mooy ànd ak man ko en tant que conseil en tant que frère ànd ak Cheikh Fall ak rajo ñu def ay sélection ci ni combat bi baax na bi baaxul nañ def nañ def ni mais le but c'est moi waaw man la waaw. am na solo yàlla na nga ci dugg ak ndam réussir ko ci ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dugg ci jàmm sax laay wax parce que tamit promoteur moom ci làmb yàgg maar lu yokk làmb yi la yaa ngi dégg parce que soxla nañ ko tey mën nañu xam ban combat nga taxawal. waaw fii ci Mbour daal sama premier journée mu ngi doon le 9 février ci stade municipal bi euh, grand combat bi mu ngi dox ci diggante Gilles bu Sali. waaw ak général Diouf. deuxième combat bi mu ngi dox ci diggante Santan 2 ak Tafatine numéro 2. troisième combat mu ngi dox ci diggante Mbin Luuli ak euh, Balla 3. am na yeneen combat yi ci toftalu maanaam am nañ dix combat daal dix combat fu ñu koy tëggee ci mbuur ci stade euh, municipal bi nekk fi biir mbuur lañ koy tëggee waaw di waaj donc di laaj waa Mbour yëpp nag ñu ñëw di tàllal loxo ñëpp surtout yow Babacar ak Ndeye Coumba jigéen yéen waa Leewtoo yëpp bis bi seen bis la di leen wax ne Loss Production pare na pour tàllal leen loxo ànd ak yéen liggéey ci liggéey bu mucc ayib waaw loolu moom ku bëgg fu mu fanaan la ku bëgg ko wét li tëjal bunt bi lu leen boole yéen ci làmb ngeen nekk ñun ci làmb lañ ne ñoo bokk teen bi faw goj di laxasoo léegi tam mënuñoo ñëw fii mbuur ngay nekk promoteur te xam nga mbuur ku ko waxu promoteur moom kenn du xalaat kenn ku dul Luc Nicolaï ñu koy ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla na ko fa yàlla jëlee ak jàmm tey yow nga ñëw di jeune dugg ci lii moom mu nekk tey ci ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ko ñaan mu génne ci encore une fois lan nga koy yónnee comme message ak looy wax doomi mbuur yi ak ban taxawaay ngeen ci war am yéen waaw Babacar euh, Luc Nicolaï dama am ak moom relation bu bu sincère bu boo xamante ni euh, lu dëggu la ci man dëggu ci moom dafa am seede seede bu mooy rajo xam na li may wax bu dee dëgg la xam na bu dee du dëgg xam na sama grand frère la ku ko yéene jàmm laa ku ma yéene jàmm parce que dañu jokko ci lu bari di ñaan nag waa Mbour yëpp ñu def mobilisation bu rëy ànd ak moom jàppale ko sunu borom dimbili ko ba fa mu nekk mu génn parce que li warta fanaan fenn fudul ci njabootam. borom baax la ku bëgg mbuur la kuy jàppale jeune mbuur la kuy liggéey ku amal njariñ Sénégal la lig parce que problème damay ne mënul ñàkk mais bu problème amee nañu xool ni mu gën a oyofee gën a rafetee ñu doxalee ko ni parce man jàpp naa ni man boog sama xalaat laay wax parce que am naa yaakaar ni man am naa droit wax sama xalaat mooy téye gi amul njariñ ak lu man a xew téye gi amul njariñ bàyyi ko mu liggéey bu dee leneen bu dee muy war a joxe la wala lu ko war a jox xamuma man mais man dama jàpp ba tey téye gi amul njariñ war nañ ko mën a libérer mu ne ci ay activité am jàppale xale yi jàppale parce que Luc Nicolaï absence am ci làmb ji catastrophe la Babacar catastrophe la kooku man je le dis à une haute voix catastrophe la donc nañ ko jàppale oyofal ko mbir mi mu dellusiwaat ci njabootam liggéey liggéey bi mu sumb fii Sénégal yàlla eggale ko ak jàmm di wax waa Mbour yëpp nag nañ ànd jàppale Luc Nicolaï mu génn ci li mu nekk. kontaan ci yow Moussa. jërëjëf Babacar maa ngi lay gërëm di la ziar di gërëm waa Mbour yëpp nag di tàllal loxo ñëpp. di wax ne seen doom laa mbuur laa am Sénégal laa am donc nañu ñëw ànd ak man ci bis bii may sumb nii le 9 février ci stade municipal bu Mbour di gërëbal ñëpp di jaajëfal ñëpp kontaan naa ci yéen. mais balaa parce que tamit foofu xam naa fa lañ koy jàll sax parce que loolu tam waruma romb te laajuma la ko parce que bu ñu nee Loss Production est-ce que dafa fas yéenee daj Sénégal yëpp maanaam xaar nañu ëllëg nga ñëw Dakar organiser fa lamb wala feneen ak feneen. mais incha allah Babacar loolu mooy sama objectif mooy man Mbour dama ne mbuur laa dëkk fi laay commencé waaw. parce que dañ ne boo ñëwee ci tool bi bëgg a bay ci sa tànk ngay commencé voilà donc dama commencé Mbour bëgg naa fi def minimum trois journées Mbour tegi fi mbapat mu mag comme bii suma grand di fi def tey soog a nag jóge Mbour ànd ak yéen ñii waa Leewtoo ak ñoomin sumay grand ñoom ñëpp ñu jëm Ndakaaru bu ma jugee Ndakaaru feneen man pour Sénégal laa bëgg a rajaxe Sénégal laa bëgg a dugg. yal si yàlla jàppale. amiin incha allah Babacar kontaan ci maa gën a bég ci yow bëgg naa ci ñëpp jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf.